كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر asalaamaaleykum asalaamaaleykum taalibe yi asalaamaaleykum wa barakaatu ñu ngi siyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp eh, di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla boole ñu baal eh, tom bii nga xam ne moom lañ bëgg waxtaane waxtaan ak eh, fàttalente ñu tuuti mooy ñu wattandiku fitna maanaam ta tahasiru min al fitan ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo nattu jaamam ñi ci aw yiw ak safaan ba muy aw ay ngir mu ràññeele ñi nga xam ne ay muñkat lañ ak ay santkat lañ ci naafeq yi ak yéefar yi ñi ngi koy sant ci xéewal yi nga xam ne du dañ mukk duñu ko xéewale guddi ak bëccëg di seede ni amul benn buur bu dul moom moom mi nga xam ne eh, mbindeef yépp ci loxoom lañ nekk seenug yëngu ak seenug dal waaye mbir yi nekk ci mbindeef yëpp it ci loxoom la nekk te it ci moom la ñuy dellu bisu pang ba yowmal xiyam ah, sallallahu alayhi wa sallam nag moo ñu xibaaroon nañu day fitna dana tàbbi ci suñu kaw mu leeral ñu ne fitna jooju ngir ñu mucc ci il faut ñu sukkandiku ci alxuraan ak sunnaam si nga xam ne moom la fi bàyyi woon nee na ñaar yooyu moo ñu mën a musal ci fitnaam jooju gannaaw loolu ah, mbokk yi nañu ragal yàlla dañoo xam ne àdduna ji ñu nekk Euh, këru nattu rek la waaye kërug examen kër goo xam ne dañ fiy jongante waaye këru jihaat la it kërug muñ la te dëgg ak caaxaan du ñu dañ mukk di fi xëccoo te it day continuer ba suñu ba suñu borom bindee aadama alayhi salaam ba tey jii dëgg ak caaxaan mosuñoo dañ ci xëccoo ak rawante tey day continuer ba ba mu koy sopp euh, suñu waxee caaxaan nag mooy li nga xam ne seytaane yi ñoo ko moo ko moo ko yanu ak ay soldaaram soldaar yooyu nga xam ne nag lenn ci nit ñi la ak lenn ci jinne yi ñooy ay soldaaram moom seytaane kon lañ ko bàyyee xel bu baax a baax te it waxtu wu nekk ñu ngi ciy liggéey di ci góorgóorlu ngir jaral ko ni ki nga xam ne ki yoroon marchandise am di ko jaay lu mu man ci taaral marchandise moomu dana ko man kon seytaane noonu lay taxawee ngir taaral caaxaan ci kaw suuf te it suñu moo ko kattanal ndax moo ne moo ne ko innahu yareekum huwa wa xabiloo min haysu laa moo ne seytaane fu ngeen mën di nekk seytaane da leen di gis ak ay soldaaram te yéen du ngeen ko gis ànd ak nag suñu borom dimbali leen ñu am ay ay jumtuwaay ay jumtuwaay yu xarañ yoo xam ne ci la ñuy euh, jaarale seen caaxaan yooyu ba wane ko moo tax bi bi ko suñu borom ne looxu bi euh, bi bi mu tàggasanteeg suñu borom ne ko looxu yannahum ajmain maanaam sa taalibe yëpp danaa leen beewloo yàlla ne ko ilaa ibadaka minul moxlasin ba mu des sama jaam ñi nga xam ne saf nañ ma ma saf leen ñooñu mënoo ci ñoom dara waaye nag li ma lay dimbalee mooy wastafsis man istataxta minhum bi sawtika wajlib alayhim bi xayrika bi xaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal awlaadi waxitum ne ko koo man ci ñoom na nga ko génnee moo xam da nga koy wommat moo xam da nga koy warale ci dara moo xam day dox tànkam waaye koo man génnee ko ci sa kàddu na nga bokk ak ñoom seeni i alal bokkal ak ñoom seeni doom na nga leen dël waaye mu teg te ne wa maa ya'iduhumu seytaanu illaa xuruura dañu xam ne seytaane nag ay dëlam lépp ay war la ak i caaxaan kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mu ne day woote day ak ànd ak ay wor ak ay pexe yu baree bari day woo kuréelam ngir ñu ànd ak moom te képp koo xam ne ànd nga moom mu yóbbu la ca sawara wa ñuy wax sahir yad'u hizbahu liyakunu min ashabi te nan la leen di woote mooy yuhassinu al-qabiha wa yuqabbihu al-hasana maanaam da leen di euh, day fekk lu rafet euh, day fekk lu ñaaw mu taaral leen ko rafetal leen ko ba mu rafet lool fekk loo xam ne euh, lu ñaaw la lu rafet la mu ñaawal ko loolu loolu mooy ay pexeem am na ñu bari ñoo xam ne seytaane war na leen lépp ci nit ñi ngir ñu am ab cër bu gaaw ci àdduna ak ay bànneex yu teew ànd ak sàggane ëllëg nag mujjuwaay ba ak ak day tar euh, suñu demee ci dëgg nag mooy li nga xam ne yonente yi alayhi salaam ñoom ñoo ko yenu ñoom ñoo ko yenu ak ñi nga xam ne topp nañ leen ci borom xam-xam yi ak ñu baax ñi te leeral nañ ko nañ wan nañ ko nit ñi bañ gis ko ma mboolem loo xam ne ay xeeti lënt lënt la euh, wuññi nañ ko leeral ko nit ñi te jihaad nañ ci yoon yàlla wi ba yàlla gindi ci seeni loxo ña ko soog te ñooñu mooy ñi nga xam ne nag ñoom mujjantalu mbir yi ëllëg la ñuy xool waaye ñoom xooluñu tey te dañuy muñ ci jihaad ak seen bakkan ak seen bànneex ak jihaad ak yéefar yi ak naafeq yi te dañuy jaamu yàlla waxtu nekk te liñ koy jaamoo mooy jihaad ci yoonam wi ak saxal dëggam ci dëggam gi saa boo xamee ne fitna génn na ak boo xamee ne lor yéefar yi tar na lool te loolu suñu borom moo moo wax ne walaw saa allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa baxdakum bi baxdi nañu xam ne suñu borom na su ko neexoon maanaam dëgg mooy not waaye nag moo ko doxale noonu ngir nattu ñenn ñi kon il faut ñu góorgóorlu ngir euh, seytaane bañ ñoo not nañu xam ne tey jii ñu ngi ci xare fitna bu mag a mag fitna joo xam ne na ko sallallahu alayhi wa sallam waxe mel ne kuy dox ci guddi gu lëndëm rek goo xam ne bët setagut nga xam ne lu muy dox rek muy gën a muy gën a muy gën a lëndëm fitna ju màgg a màgg ndax alal fitna la te mi ngi tasaaroo lool ci loxo nit ñi ku ne xam na ne Euh, euh, xale yi nga xam ne ñu ngi dem ci gaal gi waxtu wu nekk di xaru alal dong moo leen ko yóbbee te dara waralu ko lu dul dayoo bi nga xam ne jox nañ ko ko te amu ko ndax alal du nattuwaay bi nattuwaay bi mooy ragal yàlla waaw suñu borom moo ne woon inna akramakum indallaahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon loolu nañ ko bàyyi baax bàyyi xel doomit fitna la ndax lépp ci njaboot yi euh, lépp ci kilifa yi seeni njaboot seen mbiri njaboot tën na leen lool mënuñ ci dara kon loolu fitna la jaxasoo ak euh, saay-saay ak ay ay yéefar ak i naafeq fitna la te loolu moo fees dell réewi jullit ñi jigéen it fitna la te seen i danse lu màgg a la seen mbir lu lu jafe lu jafe organisé la ak woote jëme ci dëgg ak caaxaan loolu nag moom fitna ju màgg a màgg la te moom it dafa tasaaroo ci ay xeet yu wuute woote kenn ku nekk mi ngi woote te la muy woote lépp boo ko gëstu woon ba ci biir dara du ci dëgg te dañ koy taaral lool bam nuru dëgg euh, adduna bépp boo ko dee seet maanaam fa gën a sori ak fa gën a sori daa mel ne mel na réew fi mu toll nii may wax ak yéen te la ko waral mooy ay jumtuwaay yi transport yu yomb moo ko waral ak ay euh, yëglekaay lu mel ne ay ay ay rajo ak ay télévision ak la caaju maanaam moo waral lool nga xam ne lépp loo xam ne nit ki wax na ko wala mu jëf ko moo xam aw fen la moo xam aw kàccoor la moo xam ak rëy rëylu la moo xam ak euh, dàq dëgg la maanaam day àgg ca fa nga xam ne moo gën a sori ci diir bu gaaw maanaam ci euh, rajo bu ñuy déglu wala mu nekk télé boo xam ne dañ koy seetaan ci waxtu bu gaaw ci yoon wa gën a gaaw ànd ak melo melo melo melokaanu wor woo xam ne day méngoog loola lool maanaam booy seet daal jamono ji euh, dëgg daal euh, day dañ ci jumtuwaay yi dañ koy leeral naññ mu nekk loo xam ne lu biir lay doon waaye neen caaxaan soo ko dee seet ci jamono ji day nekk loo xam ne dañ koy leeral naññ maanaam mu nekk loo xam ne lu biir lay doon moom caaxaan waaye dëgg nag dañ koy suufeel mu nekk loo xam ne lu ñuy déy la kenn du ko dégg booy xool li ëpp ci euh, rajo yi àdduna bi ak yu euh, monde bi maanaam doo fa dégg kàddu kaddu dëgg yi ci ëpp ci ñoom maanaam lay seen jukko daal mooy màbbu dëgg ak euh, ay wor ak maanaam di ca wane yoo xam ne ay góor ak ay jigéen lañ cee jaxasoo ak di ca wane ay jigéen ñoo xam ne dañuy way te duñ sol dara maanaam ak Euh, caaxaan yooyu ñu di ko ca taaral di ko solon buubu ba nit ñëpp gëm ko lépp ci télé yi loolu mooy seen ko maanaam bu ñu wanee benn programme boo xam ne bu diine la sax dañ cee teg ay ay ay ay ay way ak ay musique ba mu muur loola ba ñu fàtte ko ah, alxuraan ak ak euh, ak ak hadis yonent bi saasa bu ko tegee gannaaw ba dañ cey teg ay way ak ay théâtre théâtre yoo xam ne lañ ci jublu mooy reetaanloo jullit ñi kon mbokk yi lii nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba suñu njaboot yi nga xam ne ñi ngi ci nekk guddi ak bëccëg ñu mën leen ko wattandikuloo te it lañ leen tey jàngal mooy euh, lépp loo xam ne day wàññi atey diine di leen dawloo li nga xam ne suñu borom da koo da koo daganal di leen wax ne góor wërta bari ay soxna yu mel noonu lañ leen di jàngal ak maanaam xale wërta sëy ak mag xeet yu mel noonu ak di fexe loo xam ne ñoom dañuy daw seen goro yi ñoom jigéen ñi seen bopp duñ dañuy daw seen goro yi wan leen ginnaaw lañ leen war a defal duñ leen ko defal euh, maanaam lii nag li ci gën a metti mooy li muy li muy li muy doy waar doy waar maanaam euh, mi ngi fees dell kër yëpp lu dul kër goo xam ne dafa soob yàlla kër yëpp la fees maanaam euh, ñëpp dañoo jublu mag ñi ak ndaw ñi gone yi ak jigéen ñi di leen seetaan guddi ak bëccëg rawatina nag ñi nga xam ne euh, ràññeewuñ dëgg ak caaxaan ràññeewuñ njariñ ak lor maanaam maanaam maanaam noon la deme ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci jublu beneen pàcc bi ci des mi ngi jëm ci wàllu ci wàllu njàng mi maanaam loolu ñu doon wax mi ngi yëm ci wàllu presse bi ak la ci aju waaye suñ demee ci njàng mi njàng mi nga xam ne moom la ñu organiser ñun lañuy fekk mu yées presse bi ci aw melo ndax njàng mi léegi ci daara la ne woon waaye léegi jóge na ci daara dem ci école maanaam li commencé ca Sardé euh, de la Fa ba ca université maanaam jëlee nañ ko ci njàngalem diine jëmee ko ci njàngaleem àdduna wala sax xam-xam boo xam ne danga naan amul njëriñ àdduna amul njëriñ àlaaxira euh, lépp ci xale yi ndaw yi euh, ndaw yi jullit yi réere nañ seen diine da ngay gis koo xam ne sax maanaam day dem ba université te ba maanaam mënut a jàng ayib alxuraan bu rafet te nga ne kooku doomu jullit la taalibe Sëñ Tuubaa la teg loolu nañ ko seetaat bu baax a baax. te la ko waral mooy programme ba ñu leen jox ci diine moo doyut la nga téere yi nga xam ne saxal nañ ko pour ñu ko fay jàng doyut wala sax ñañ ñañ ko jagleer ngir ñu di leen koy jàngal maanaam duñ ko xam dëgg-dëgg maanaam di xamuñu diine ndax ñoom noonu lañ ko jàngale woon maanaam euh, dañuy mujj euh, wala sax ña nga xam ne ñoom leen leen boole ñu leen jàngal dañuy yor ay melo yoo xam ne du melo yu jullit du melo yu baax su ko defee nag ñoom ñu mujj nekk ay royteef ci ñoom ma te la ko waral ni mooy doyadal gi nga xam ne doyadal nañ ko ci examen yi ndax su fekkoon ne nit ki balay balay euh, dana am euh, ab bu baax ci diine kon danañ ci góorgóorlu waaye nag nit ki man nay pa admet di admet di admet ba université te doo xam doo xam far day julleem loolu moo tax ñu doyadal ko ndax su fekkoon ne ku balaa kenn jaal dana dana dana dana ko xam kon faaw ñu bàyyi ko xel kon mbokk yi loolu nañ ko bàyyi xel te lii ma leen wax maanaam new ma mel réewoo ko jagoo waaye adduna bi programme bi moo fi dox adduna bépp kon nañ ko bàyyi xel bu baax a Euh, ànd ak lépp nag dañuy bu boone euh, euh, ñun kat diine la dund ak islam te islam de tuumuranke ne tuumuranke goo xam ne maanaam ku ñu réere ci ak këram la ba mën nañu wax ne sax dara desul ci moom lu dul am màndarga fitna jii nag lenn moo tax ñu mën cee mucc mën cee génn mooy ñu dellu ci téere bi yàlla bi téere bi nga xam ne suñu borom ne woon na laa yaatihil baatilu min bayni yadayhi wala min fii tansilun min hakimin hamid téere bi nga xam ne nee na ak caaxaan du ko jóge fenn kon loolu rek moo tax ñu mën a ñu mën a mucc sëñ Tuubaa doon wax naan huwa sifa min kulli daa liman alayhi tamada wa man abahu turida saaxatarin wan na dami nee na alxuraan mooy saafara bépp jàngoro ci képp koo xam ne sukkandiku nga ci maanaam jaaw a gëm ko topp ay ndigalam bàyyi ay teram waaye képp koo xam ne war nga ko ginnaaw danañ la dàq te da nga perte da nga rëccu wa kullu shaxsin alhada fihi walam yajtahida bi tawbatin la xarada min rabbil muntaxibi nee na képp koo xam ne daa jeng wan ginnaaw alxuraan te farluwut tuub tuub gu sell nee na dana dajeek alkande ca buur ba nga xam ne aj aji fayantoo la nee na mooy téere bi nga xam ne képp koo xam ne sàkkoo naa jub ci moom dana jub te bu ëllëgee dana texe te dana mucc ci mbugal waaye nag képp koo xam ne wan nga ko ginnaaw dëddu ko wan ko ginnaaw te settantaloo ay mbiram mooy nga yàlla te bu ëllëgee man dana danañ la danañ la ngi Euh, baal wax ñëpp di baal ñëpp di ñaan yàlla boole ñu baal di ñaan ñu teewee ko déwén ci barke alxuraan euh, di siyaare mboole ñi nga xam ne teew nañ ci julli gi ñëpp di sant suñ kilifa yu baax yi nekk ci kanam di ci jiital sëñ Abdou Mbaw mi ak sëñ Moussa Sylla ak mboolem ñëpp ak waa jàkka ji di ñaanal ñëpp euh, ñu teewee ko déwén ci barke alxuraan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala di ñaanal suñu وناجني ربي ولا داري هنا وفي قد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خبر بلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما اختاروا وجل إجابا بيننا وبيننا كل عسان وارتفع عنا العينا يا الله يا نصير يا جليل إني أخير معدم سليل فلتغنني بك